ginaaw ma sant yàlla julli ci Yonent bi samay waajur maa ngi leen di maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa Wassare Lamb du nuy sa caméraman nu nuyu askan bi yëpp daal maa ngi leen di ziar bu baax a baax leen màggal. ñu gis na bi mooy sixième combat bi euh, combat bee passé daan nga ak Maniang ak Boy Remarque ah. Boy Remarque waaw ñu gis nga mujjee bëri ki nga xamante ni mooy Boy Remarque yàlla dogal nga am ci ndam mais boobaa ak léegi ñu gis la yaa ngi entraîné tooguloo benn yoon boo jugee waa syndicat jóg boo jugee waa Pikine jóg naka nga naa waajee làmb waaw comme ni ma daan waajale rek wala lu ko raw quoi parce que yaakaar naa soo amee combat di mobiliser promoteur yi la jox ay combat sooy mobilisation dafa war a gën a yokk quoi instant yi ci loolu lañ nekk nii ñu ngi préparé pour mobiliser bu baax a baax ñëw ak doole quoi. la moo duggoo ci Tapha Xaragne. waaw ah, Tapha li ma ci dugal rek comme li ma dugal ci yeneen gars yi rek parce que yaakaar naa ku def six ku def cinq combats am quatre victoire benn match nul yaakaar naa ne benn mbër wur laa mën a bañ mais gars yi dañuy teggi moo tax nag gars yi ay ponkal rek lañ lay jox yoo xamante ni kenn xamu leen te loolu ñun dañ dañ koy nangu daal parce que làmb moo tollu foofu mooy tonte bi dafa bari looloo tax ñu dem jëli ko. gars yi lan lañ lay lan lañ lay dawee ak lu ñu lay teggee parce que defe naa ne ko def 5 combats 4 victoires benn match nii defe naa dafa ko dara ci làmb. waaw dafa goo ci dara mais gars yi dañuy wër fu nooy quoi ku neex daan la ñuy wër koo xam ne da ngay jàppale daan loolu moo tax defaguñ ci làmb dara nag moom mais nag instant yi jot na bëri na fi suñ morom yoo ay punkaleng fii ko wàññee ay sept combat huit ñuy bëri ay grand combat ñëpp foofu quoi. mais est tamit doo wàññi entraînement yi xaw a nooyoo tuuti pour ñu ñeme la. Ah ko wàññi moom il faut nga nekk ci kaw rek <laughs> a xam daal ñoo war a ñëw moom mooy loolu ñi ci kaw ñu gis ne Tapha Kine combat bi mujj bëri na combat bu metti moom tamit combat bi yaakaar naa da cee mujjee mag si nii mais combat bu métti te yàgg est-ce xam nga ne xeexkat la. waaw seetaan naa ko xam naa ne bëreekat la xeexkat la mais ñun loolu jaaxaluñu parce que ñun ci bëre door lañ jàngee bëree kon yaakaar naa loolu duñ jaaxal waaw loolu moom jaaxaluñu daal. pare nga naa pour lépp lu làmb ji laaj rek mun nañoo ñëw xeex mun nañoo ñëw bëre. lépp daal la ñuy pare rek incha allah. naa ni moom seetaan na sa combat bi mujj ndax sa combat mujj yàgg booy remarque euh, kontaan ngeen jàppante ngeen lu yàgg nga vidéo ko ba mu neex la nga baraake ko mu daanu defe naa ne bu la xoolee dina xam ne bërikat la am waaye foo fekk bërikat nag faa nga xeexloo ko pour mun ko jumloo ci bëri bi mun koo daan lan nga koy wax. waaw li ma koy wax na pare rek andi doole parce que ki muy bëreel borom kàttan la te teewul bëree. na pare daal lépp loo xam ne làmb ji laaj na ko ñu joxe ko mu bañ a nekk foofu di daw quoi comme li ko li ko dal ci combat bi di match nii loolu bañ koo dal loolu laa koy wax. mu ñëw di rasoog di taxawee góos ak léwtoo jëmale gannaaw su. affaire la dëgër yooyu daal laay bañ mënu ko ci làmb ji ñëw ci làmb ji arrêté rek di daw na ñëw bëre si rek làmb bu ñëwee bëre daal dinaa ko duma daan ko. est nga ni moom lay seetaan. waaw mi may seetaan mais li ma koy wax daal bu jour baa na ñëw indi jom rek ak fulla ak fayda làmb ji jeex parce que amateur yi soxla wuñu ay làmb match nul quoi li ñu soxla mooy combat bu gaaw neex même bu yàggee tamit na neex ngeen bëri quoi mais pas de di match suñu daal man d'accord ma loolu. ca la mu jóge woon moom xalaatoo ca dellu te daal jàpp ko daan ko nga gis. kut koo kut moom comme fi ma jaar ay moroom laa koy jaar rek du ma daan rek. mais mu jóge ci komba euh, ay amateur amateur yi kenn kontaan ñu supporter yi bégguñu moom ci wàllu boppam kontaan nu nga bëgg a ñëw bëgg ko jàpp daan est-ce que loolu dina yomb tampon. waaw non pression bi ci moom lay nekk rek parce que moom moom yaakaar naa ne kon comme que moom moo bëree ji woon nangu la bëre yaa reer ba jugee ci match nul ah man de li ma daan def laay def bu arbitre bi soufflé moom damay attaqué du ma xaar dara loolu laa laa fas yéene bu soobee yàlla. fi mu toll ëpp li ci li ngay entraîné contact nga ëpp ci li ngay entraîné wala salle musculation wala boxe nga ëpp looy entraîné. nooy sànq moom trois séances laay def damay def fajar gi géej bëccëg gi musculation ngoon ma dem contact. instant bi nii nii may wax ak yow yaa ngi ci trois séances. trois séances laay def par jour loolu laay def par jour. lan moo woo trois séances ma yaakaar deux rek doyoon. non deux yi doyut mais xam nga rek soo amee combat ñëpp naan la waa ji borom doole la bëreekat la il faut nga dem liggéey il faut nga liggéey quoi te yaakaar naa amul lu ñu toog lu ñu xaar ay xale lañ loolu mu ñu wàññi dara moo tax ñuy liggéey noonu. Mhm. kon bés bi daal su ma juumul yaa ngi koy waaj bu baax a baax ak waa syndicat. waaw maa ngi koy waajal bu baax maa ngi waa syndicat Pikine gi yëpp ak fa ma dëkk mi jaabel Colobane Saloum waaw di ci woo nag waa Colobane yëpp rawatina le directeur général le directeur général du fonds l'habitat foofu lañ nekk nii tey di fi def émission mu Ousmane Wade moom da si daan jàpp bu baax a baax maa ngi aussi mu gën cee jàpp ak képp kuy doomu kolobaan si ñi maa ngi lay woo si bi nga jàpp ci bu baax a baax parce que combat bi combat combat la daal ci biir combat yi ni ñu ci doon jàppee gis naa ko mais dama bëgg ñu gën yokk seen loxo gën cee jàpp bu baax baax waaw. mën cee wane sa bopp. waaw dañ cee bëgg a wane suñu bopp bu baax. parce que nag teg la ay combat di bëri di daan di bëri di daan dafa am combat yoo xam te da koy jël bëri ko ak manière wane sa bopp ndax boo ci jugee ci ñi nga xamante ni doon nga bëgg a ak ñoom te nanguwuñu laa jël ñu mën a xam ne kat booy bi kat fi mu toll nii jël ko jot na. waaw loolu moo tax parce que tamit maanaam boo jógee ci ay victoire li la war mooy boo ñëwee nga confirmer waat daan parce que am na nu muy demee soo jógee ci yen victoire yi ñëw mun nañ ne kat am lu ñuy wax mais soo confirme fii combat bi confirmation la quoi. te dañ cee war a mobiliser bu baaxa baax indi indi supporter parce que yaakaar naa mbër moom instant pour nga bëree il faut nga indi mbooloo di jaay billet yu bëri moo tax mobilisation bi daal soxla naa ko trop maa ngi ciy woo ñëpp sama fan ci club bi maa ngi leen di woo bu baax a baax fan ci club tampon bi yëpp ñu jàpp ci ni ñu ci daan jàppee daal mobiliser teew jënd billet yi jàpp ci organisation journée bi ñoom ñëpp maa ngi leen ciy woo. mais keroog dama gis bi ngay bëre ak euh, kii di euh, booy remarque waa syndicat bi ñu ñëwee ay madd la ñu andi parce que période boobu période madd la bu ngeen di ñëw stade yaa ngi nag comme ab xam naa xaal est-ce que du fekk xaal jaal <laughs> non bu fekkee xaal jàll ñu andi orange rek wala clémentine bi yëpp a nga fa <laughs> syndicat moom xam nga du manqué fur yi moom lépp a fa am échange yi madd yaa ngi fa lépp a nga foofu moom bu soobee yàlla comme ni ñu doon def rek dañuy indiwaat moom li ñu doon waaw lan ngay wax ñi nga xamante ni nii ñooy say supporter ak ñi nga xamante ni nii dañuy bëgg tempo ak ñi lay jàppale lan nga leen wax. waaw di leen wax ni ñu gën a ñu gën a jàpp rek seen mbër moom mi ngi ci lim war a nekk ko ñu ngi ci entraînement yi ñu ngi ci mbëre mbapat bi kon ñoom nañ gën nañ si gën a jàpp daal ni ci doon jàppee gis naa lépp mais ñu gën a jàpp daal di woo ñëpp bàyyiwuma kenn nag waaw. di woo ñëpp bàyyiwuma kenn euh, soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax. waaw kàddu yi mujj yi xanaa di di sant di gërëm rek di aussi ñaanal sama yaay yu fi jógee yàlla yërëm ko. xaaree ko àjjana ak sama papa. parce que da am sama yaay moom daf may manqué ci wàllu làmb trop ndaxte da doon sonn sama ay combat du si daj lu ne kon te yaakaar naa su ma amee combat fekk ko fii dina am lu manqué waaye nag loolu lépp dañuy jël lépp toog teg ko ci loxo yàlla. waaw mais maa ngi woo sama waa dëkk yëpp képp commune Colobane maa ngi woo dëkk yëpp su ma limee dina am dëkk yu ma bàyyi waaye bàyyi ma fenn parce que su may dem di défendre couleur dafa défendre ma couleur jaabel kese couleur Colobane yëpp maa ngi si woo ñëpp di woo Ousmane Wade le directeur général labita ak euh, kii Amath Diop aussi maa ngi ko ciy woo moom dem da siy jàpp di woo Ngañ Seen di woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn fépp foo xamante ne bii doomu doomu Colobane si ñu ngi fa maa ngi lay tàllal loxo nga jàpp ci parce que soo jàppee da nga ci war a jàpp soo jàpp da nga ci war a jàpp waaw bàyyiwuma kenn daal maa ngi woo ñëpp aussi di woo Pikine fi ma dëkk nii muy monsieur le maire euh, monsieur le maire laaj Timbo ak euh, kii tur bi laay fàtte mais maa ngi woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw su ma limee dinaa jum maa ngi woo ñëpp ñu jàpp ci niñ ci daan jàppee. dina seen doom mooy mooy mooy wàcc ci te soxla na jàppale soxla na ay billets soxla na ay car car sax daanaka Pikine moom da ngay dox rek jëm ci stade bi mais soxla na jàppale daal ci ci wàllu mobilisation bu baax a baax. waaw mobilisation bi moom moo ëpp solo moom parce que làmb ku ko wax wax mobilisation billets yi na si gars yi jàpp jënd yëpp maa ngi ciy woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw. naka écurie bi nu ngeen def. waaw écurie bi ñu ngi fi ñu ngi ci nekk li ñu daan nekk rek di ñu ngi ci entraînement yi chaque jour chaque cinq heures ñu daje dem sa yoon ñu ngi liggéey lu métti daal instant yi da ngeen doon kaas bu ñu tijji leen làmb ci ñu doon làmb tijji nañ ko naka nga ko gisee. ah làmb ji niñ ko gisee kontaan ji rek wax dëgg yàlla am mais liñ ci xaw a am lu ñuy naxar rek mooy genre làmb yi commencé guñ fenn saison ñu yaakaar benn ko bu mag moo amagun mu yàqu quoi loolu tamit. combat Siteu Papa Sow te loolu nag nañ waxante dëgg mais CNG rôle am rôle bu mag la ci la ci la ci am ñu ngi xaar daal maanaam ñu teg làmb gën a teg làmb ji yoon parce que yaakaar naa ne tey mbër préparé ba dernier jour. mu ñëw dara desul lu ci yow bëree ab tëggkat dóor ko dóor ko dara yàq mu yàq làmbam yàq loolu rafetul quoi ñu ngi koy ñaaru bu baax a baax. maanaam jàpp nañ daal organisation bi mënoon naa gën a ñoŋ bu Siteu nekkee fii ay tëggkatam nekk fii Papa Sow nekk fii ay tëggkatam ne fii organisation bi kii yem fii kii yem fee ñu bañ a laalante ba dugg ci digg yow. non carrément boo loo nekk nekk xale soo xamee làmb miin làmb dugg ci biir làmb gis organisation bi da xam ne lii jaarut yoon. Mm. parce que yaakaar naa mënoo jël tëggkatu Papa Sow tegee ko côté Cité jël tëggkatu Cité tegee ko côté Papa Sow loolu soo ko defee yow yàq nga làmb te aussi làmb nit ñi def di interdit mbër yi ay fii fii loolu du yoon mbër bi war nga koo mën a bàyyi foo ko neex ci stade mun na faa dem pour man yooyu mën naa mën kii quoi di nga war a bëri sax doo tasante ak sa adversaire ci biir géew bi nga ko gisee te war ngeen mën a tase xas-xas loo supporter yooyu jóg ngeen neexal stade bi andi ambiance. waaw moo yoon sax mais loolu man pour ni ma gis ni daf stade bi dagg ko ay barrière fu ñu dagg ruxu-ruxu pour man loolu rafetul neexul ci làmb làmb daal la war naa gën a mën a te war ñi ñi ñiy dund làmb dëgg-dëgg xam làmb war nañ leen dugal ci biir làmb aussi ñu doxal ko parce que nag pour man am na ñoo xamante ne bii ñu ngi naa ñu ngi ci biir te xamuñu làmb quoi waaw. man daal loolu laa am lu may wax daal quoi ñu gën a defaraat làmb ji xoolaat ko bu baax parce que neexul. comme mbër préparé ba dernier jour mu ñëw yàqal ko làmbam noonu noonu quoi te aussi war nañ tépp képp koo xam ne def nga ko def nga ci dara ñu teg la ay sanction mais gars yi moom mbëri rek la nga xam ne mi ngi ci biir làmb jël dara dóor ko mbëri ba pare kooku normalement yow waroon def muy génn ci mbedd mi dem di dox ay soxlaam loolu man d'accord ma ci rafetlu ma ko tamit gis ngeen mbokk yi d'accord ma ci rafetlu ma ko tey tampon lañ seet woon xale la ci biir xale yoo xamante ni jar naa bàyyi xel ndax xale la boo xamante ni mën naa bëre mag ñi su mu nee xale la boo xamante mën naa bëre mag su bàkkoo mu neex bu feccee mu neex su ñëwee kenn du laajte ana mbër mi dina wax na nag xale la moo ngi nekk kii Ramadane bi muy sixième combat am dina wax ne nag ngeen bàyyi ko xel ndax euh, genre yu mel nii dañoo dañoo jar bàyyi ci réew ndax nekk xale di entraîner boole ko wut métier toogul rek xaar làmb toogul rek xaar am combat. pour mën a def daa mu ngi jug di góorgóorlu di daan dooleem di ko ñaanal nag ah li nekk ci kanamam moo ko xam yàlla na ko yàlla motaleeg jàmm di ko bàyyi mu tàggatoo rek ñu tëj ba beneen yoon incha allah. waaw di nuyu ñëpp rek di sant di gërëm surtout sama fans club bi nekk syndicat ñu ko jiite ñoom Mbaye Ngom Mbaye Sa Thiès ñoom Moussa Sène ñoom Cheikh Diop maa ngi leen di ziar bu baax a baax di jaar sama mag Cheikh sëy ak Birane ak sama doom mag yi ñëpp ak jabar yi ñëpp maa leen di ziar bu baax a baax nuyu ñëpp da baax a baax a baax nag monsieur Ousmane Wade moom moo ñu taxaw na ñëw fii tey mais heureusement dafa jàpp ba looloo tax mujj ñooy gisante moom mais dara daal ñu ngi sant bu baax a baax di woo ñëpp nag ñu jàpp ci affaire yi comme ni ñu ci daan jàppee wasalaam gis ngeen di si jàpp comme ni ñu ci doon jàppee di leen jox dig daje ak Wassare Lamb jàmmaarloo ba beneen yoon Adama kontaan naa ci yow jaajëf